télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru diggu njoloor ki dina bokk ci la ñuy waxtaane tey ab euh, euh, mouvement d'humeur bu ñu nemeeku tey fi nga xamante ne mooy société africaine de raffinage ñu gën ko xam ci turu SAR ñoom nag liggéeykat yi ñenn ci ñoom dañu xëy takk ay brassard yu rouge li ñu bëgg rek mooy ñu yokkal leen seen i payoor xoolal tamit seen condition de travail moo waraloon tey rek ñu dajaloo foofu ngir di sàkku ci seen i kilifa ñu taxaw ci linu ni ci jamono jooju nag eh, gannaaw eh, li nga xamante ne mooy gàmmu bi ñu amaloon ca hôpital eh, El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ñu ngi xayma bilan bi ci seen i intervention jamono yi gàmmu gi ñu ne nag lu toll ci téeméeri patient ak benn ñu amee woon feebar am na tamit lu toll ci juróom-benn fukki accident ak juróom-ñaar ci loole nag ñu jot ci xayma ñaari décès ñu ne nag ñu ngi jaajëfal liggéeykat yi ndax taxawaay bu mucc ay bi nga xamante ne. am nañ ko ci jamonoy mawlud bi association bi ëmb ñi nga xamante ñooy yëngu ci wàllu glace fii ci Sénégal ñoom nag jamono ji ñu ngi sàkku rek ci waa Senelec ñu xoolaat eh, li nga xamante ne mooy taxi yi li ko waral nag dañu njort ne dafa cher lool ba tax rek mu am ay njeexital ci seeni liggéey ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu xoolaat li nga xamante ne moom mooy euh, aju ci payoor bi bu ko moyul rek dinañ yokk li nga xamante ne mooy njëg bi ñu doon teg ci glace bi euh, ndax euh, jamono ji nee nañ metti na lool ci seeni ndodd dinañ wax tamit ci biir xibaar yi ci wàllu location bi ak seeraay bi ak jéego yi nga xamante ne kilifa yi jël nañ ko jaarale ko ci njiitu réew mi Macky sàll ngir fexe bi askan wi mën ci gis seen bopp ci njeexitalu xibaar yi dinañ leen xoolal li gën a fës si yenn yi mbokk yi boo leen taxeloo tuuti ñu faram ko. mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu ko xewoon ci ponk yi li nga xamante ne nag mooy fële ca SAR di société africaine de raffinage ñenn ci liggéeykat yi dañu xay tey rek euh, takkay brassard rouge ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu xoolaate seen i payoor seen condition de travail tamit ñu saytuwaat ko bu baax a baax ñu ne nag jamono ji li ñu bëgg rek mooy seen i kilifa yi euh, déglu leen bu ko moyul nag dina am ay njeexital ci seen i liggéey moo tax rek tey amal. nañ li ñu duppee sitting foofu ngir fexe rek ba askan wi rawatina kilifa yi féete foofu may leen euh, nopp bu ko defee tamit ñu mën a jublu ci seen mbir lu bokk na ci li nga xamante ne rek mooy payoor beeg condition de travail yi du ñàkk ñu ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci suñu xibaar yi di ñëw. ci jamono jooje nag euh, association bi ëmb liggéeykatu glace wala ñuy yëngu ci wàllu njaayum glace fii ci réew mi ñoom nag nee nañ si yi nga xamante ne Senelec da leen koy teg ci seen ndot seer na lool ba tax na jamono ji dañuy faral di amay jafe-jafe ci seeni liggéey ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu wàññi leen ko baax baax bu moyul danañ yokk li nga xamante ne rek mooy njëg bi ñu doon jaayee glace bi dañuy teewlu kenn ci ñoom wala sax liggéey bi nga xamante ne Ndeye Mati Dieng ak Mamadou defal nañu ko ca diwaanu Mbour ñu teewlu leen. leen Senelec di andil li nag jaaykatu glace yi ne faw ñu wax ko ba ñëpp dégg ko. taxe bi ñu euh, Senelec di teg ci prix fixe bi defe naa ni boobu benn la. mu nekk loo xamante ni lu cher la. li nga xamante ni moom la ñu Senelec di taxé aussi ci K1 bi ak K2 dafa nekk dee tarifs yi nga xamante ni yokk na tous les pièces de rechange boo ci jënd da ngay fay xaalis double ba nga daan fay. ñoom ñi le sax di xamle ni bari na ci usines yoo xam ne jamono ji dañu ko rek daal di tëj li ko waral nag moo di seen loxo moo jotatul seen ginnaaw. pas mal d'usines suñu amee jafe-jafe rek c'est par rapport ak euh, Senelec parce que les factures vraiment trop par rapport ak li nga xamante ni moom la am ci revenu fin du mois jot nga dem lebiwaat xaalis ñëw dugalaat ko ci usine bi wala nga dem utiwaat bi loolu xam nga ni lu lu xaw a métti la te lu te lu dis la quoi dama soxla woon grâce ci màggal Tuubaa bi ma dem jëndi euh, jën usine poisson bi nekk Pikine pour mu am glace pour congeler jën yi mu dem Touba usine bi ma dee ndikkee damaa dem fekk ma boobu tëj na depuis trois semaines xaw ma quatre ñoom ñi le di ay jaaykatu glace ne dafa mel ni nguurub Sénégal dafa leen a fàtte ndax ñu ne ba file amul benn ndimbal bu tukkee ci nguur gi jëm ci ñoom. yàggul président woo na toutes les couches économiques de la de la société euh, ba mu des euh, le secteur de la glace. mburu rek mburu kuy defar mburu da ngay soxla ci sa conception glace et dafa nekk loo xamante ni tey bu dee producteurs yi ñi nga xam ne dañuy jaay mburu mën a am sañ-sañu yokk mburu ñun ñi nga xamante ni ñoo leen indi seen euh, matière première amul sañ-sañ yokk loolu aussi euh, beneen mbir la. ñoom ñi le sax di artu way jëfandikoo yi di xamle ni ci ay fan yu néew bu ñu amul saafara li ñuy mujjee def moo di yokku njëgu glace gi ndax ci noonee dong la ñuy mën a amee ndëgër laay. yokk bi jàpp nañ Ndeye Mati Dieng bu ñu jógee diwaanu Mbour dañuy utali Saalum foofee nag ca Kaolack kilifa yi jiiteeti hôpital El Hadj Ibrahima ñas ñu ngi xayma bilan bi gannaaw seen taxawaay ci jamonoy mawlud bi ñu ne nag jot nañu foofu ñoo xamante ne dañu amoon ay jafe-jafe ci wàllu wërgu-yaram ñu xayma ko ci téeméeri nit ak benn am tamit ñoo xamante ne ci ay cas accident lañu leen doon boole rek toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ñooñu sax am na ñaar ñoo xamante ne rek ñàkk nañ ci seen bakkan ñu ci rafetlu rek liggéey bi nga xamante ne euh, agent yi nekk foofu ca l'hôpital ba am nañ ko ci jamonoy mawlud boobee ci loo sax dañuy teewlu jatu saar Kébé mooy directrice hopital régional bu El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ci micro Ousmane Dem euh, caméra ba Falligué ci gàmmu gi Euh, jot nañu ci PMA yi ak euh, poste médico avancé yi district de nag ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci suufu hôpital ñooñu bi ñu amee lu leen jaaxal indi nañ fi téeméer ak benn yoo xam ni ay nit ñu soxla woon dimbal bi donc ci téeméer ak benn yooyu seetlu nañ ni juróom benn fukk yi ak juróom ñaar ci accident yi la jóge ci accident yi ak surtout ci jakarta yi donc ci juróom benn fukk ak juróom-ñaar yooyu ñeent dugal nañu leen bloc opératoire ba opéré nañu kenn mu ngi réanimation euh, ñeent euh, kenn am nañu ñaari décès yoo xam ni kenn ki bi ñu opéré ba pare la kenn ki dafa yegg si indiwul bakket donc loolu mooy téeméer ak benn yi ñu jot kenn ki nekk réyanimation yi nag dama ci taxaw tuuti inconnu la inconnu mooy koo xam ni ñëw nga mais gisuñu wenn yoo xam ne mën nañ laa xàmmee donc di gën a ñaax nit ñi rek kuy tukki nga yore sa pièce d'identité même soo ko amul sax nga bind sa tur ak sa numéro téléphone wala koo yaakaar ni boo amee tolof tolof mën nañ la woo loolu dafay am solo donc di fàttali ni ministre de la santé euh, le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñëw na seet si ñu alxemes xool dispositif bi gën ñu ñaax gën a yokk taxawaay yi donc loolu tax na équipe yi gën a revigoré wu ñoo ngi sant yàlla bu baax euh, bu ñu sañoon benn accident du am mais bi mu amee taxaw nañ ci taxawaay bi ci war leneen lu aju ci wàllu location bi seetlu bi nag mooy kilifa yi am na jéego yu ñu nas jamono ji ngir fexe ba wóolu ñi nga xamante ne ñooy waaye luwaaye yi ndax dañu jàpp ne dafa seer lool ci loole nag ñu ñëwaat ci mesures yi nga xamante ne kilifa yooyee jël nañ ko ak ni ñu fas yéene séddale ngir liggéey bi mën a yàmb ñu teewlu ko. bi saytu lépp lu waaju ci wàllu location fi ci réew mi rek fësal na liggéey bu mu sumboon fan yi ci loole nag nee nañ lépp lu waaju ci wàllu payeur location bi dañ ko fas yéene jaarale ci ay pàcc maanaam ay catégorie bu ñu jëlee catégorie une bi nag nee na dañ koy plafonné lu toll ci fanweeri junni catégorie deux moom dina nekk ci diggante fanweeri junni jàpp téeméeri junni ñetteelu catégorie bi moom jàpp téeméeri junne ak lu tegal ñu ne nag commission bi noppi na daanaka ci liggéey bi te fan yi di ñëw dinañ ko jaarale ci ab décret présidentiel liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu commencé ko appliquer fii ak 1er janvier ñu wax ci alam bi dem ba ca bët euh, gànnaaru réew mi foofee ca diwaanu Ndar Géej nag am na lu toll ci fukki kuréel ak ñeent ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu euh, sàmm suñuy environnement ñoom nag dañu bëgg rek euh, yëngu-yëngal ci lu aju ci dolelaat li di mangrove dañ ci sukkandiku rek ngir xeex li nga xamante ne mooy changement climatique ndax gis nañ ne jamono ji bokk na ci liy gën a sonal askan wi Ousseynou Diop. def na ci ab njàngat ci teewlu ko. mbooloo bi ñu duppee 5 delta nga xamante ni fukk ak ñeent ci ay organisation internationale ak locale ñoo ko ëmb ñoo doon waxtaan ci diwaan Ndar li leen gën a tiital bokk na ci alam bi jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko rawatina mangrove bi ci diwaanu Ndar am jafe-jafe yu mag. sur euh, le delta de delta yi nga xamante ni yëpp gis nañ ko bokk na ci bu Ndar Géej dafa menacé wu ndaxte li ñu gis mooy mangrove bi sax léegi ay jafe-jafe la am. ils sont menacés notamment par les problématiques de l'érosion côtière. yàq alam bi bokk na ci lii indi gàllankoor ci réew yu bare rawatina ci Sénégal Guinée ak bi ñu ni dañu bëgg di xàccandoo di dóorandoo ngir jafe-jafe boobee mën a dakk. cinq delta ñu seet ci wàllu mangrove ñi dëkk yi nga xam ne loolu laa laa wax ni bi Gambie bi Bissau bokk ci cinq delta bi kon de di nga gis ne lu laal Gambie laal na Sénégal. lu laal Gambie ak Sénégal laal na bi sax mangrove bi kilifa yi nii daañu ci dugalaat seen loxo ngir mu mën a taxawaat. Euh, dafa am importance pour Sénégal xam ngeen ne Ndar dafa nekk euh, zone bu nga xam ni c'est particulièrement menacée par changement climatique waaye tamit ñu fexe ba nga xam ni euh, dinañ ko reconstituer ba nga xam ni lépp lu nga xam ni jotoon nañ ko ñàkk ci mangrove ñu fexe ba nga xam ni dinañ ko jëmbataat. bu ñu boole suñu doole rek dana nekk benn kon nag ñun mission bi nga xamante am nañ ko mooy fexe boole ñëpp. ngir mission bi daal di réussir. Euh, donc c'est très bénéfique pour euh, pour nos structures. ndaar changement climatique bi indi fii loraange rax ci dolli mangrove bi nga xamante ne jamono jii yenn ci gox yéen ko daan gis sax gisatuñ ko ñi di waa 5 delta nee nañu loolee la ñu bëgg a dekkilaat Ousseynou Diop ñu dem ca diwaanu Bawol foofu nag seetlu bi mooy fas wala mbaam bokk na ci li nga xamante ne dañuy dugal euh, koppar bu bëri ci wàllu koom bi terewul nag ñenn ci askan wi dañ leen di euh, fitnaal sonal leen lool ba tax rek am na ñoo xamante ni dañu bootu ci ay association ngir xeex li ñu mel mooy li ñu bëgg rek mooy ñu delloo euh, cër bi nga xamante ne moom la mala yooyee yellool bu baax a baax Babacar juf ak Ndongo Ndiaye. ñooñu toogal ca diwaanu Bawol. koom-koomu askan bi kenn dootu ko laam-laamee. importance su mala gis nañ ko ci dëkkuwaay kuy bay tey yor dugub ju bari ak gerte gu bari yaakaar naa fas ak mbaam moo tax booy dem marché aussi lu mu sori sori yaakaar naa fas ak mbaam nga yaakaar tak sa saret dem kon yaakaar naa fas ak mbaam bu manqué ci kër gi dina am jafe-jafe kon comme loolu nga xam ne fas ak mbaam yi mën nañu ko ñun booy xool mën nañu ko suñu bopp. war na tax ñun ñu bàyyi leen xel bu baax a baax. loolu nag teewul dañ leen di mitital mitital yoo xam ne nii mën naa am jeexital ci seen ab yaram. mais des na parce que xëj na nit ki dina yor fas toppatoo ko mu suur ba dee mais boo ko gisee bu ko takkee mu nga yor xiir goo xamante ni da koy laabali rek kon loolu euh, des na. nag mbaam yi mbaam yi nga xam ne xaj na vraiment ñoom lañ gën a bàyyi ci ko côté parce que xaj na fas yi sax tane na mais mbaam booy xool nit ñi boolewuñ ko sax si jur gi. loolu ñu leen di def nag neexul ñi nga xam ne ñooy association des producteurs de la région de Diourbel ONG Brooke jàppale leen ci ñu koy xeex. nag bu dee ñun ci suñu gox moom département Bambey wax dëgg yaakaar naa saafara am na ci bu baax parce que Brooke ak IRAP def nañ ay réseau vétérinaire ci département Bambey gépp gox boo dem am na fa benn ndaw boo xam ne tàggat nañ ko ci mbirum fajum vétérinaire ba nga xam ne jox kook matuwaay yu mat sëkk ba nga xam ne lu mu sori sori boo ko wooyee mu ñëw faj fajal la ci fas kon département Bambey moom yaakaar naa ne jafe-jafe boobu wàññi ko na fi. animateurs yi programme gawar yi ci rap Bambey doon wër dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Caxar pour sensibiliser askan wi ñu gën a mën a téye seen fas seen berkele ak seen i mbaam. Babacar Diouf ca diwaanu Kédougou moom am na rek euh, xeetu euh, yoo xamante ne rek euh, dafa boo moyul sax dina nasaxal récolte yi aju ci wàllu coton foofu ba tax na jamono ji ñu ngi artu rek di sàkkur ci ñi nga xamante ne ay spécialiste lañ ñu jël ay matuwaay ngir jële fi mel Sodefitex nag mu ngi yéeglu tey ñaan rek eh, kilifa yi ñu gaaw ci li nga xamante ne mooy matuwaay ñu war a jël bu ko defee rek loolee ñu bañ a yàq lañu jot a liggéey ci wàllu eh, week-end foofu dinañ ci ñëwaat ci suñuy xibaar yi di ñëw. ci Rufisque moom nas nañu pexe tamit ngir fexe ba tànk yi rawatina élèves yi bañ a am benn jafe-jafe ci wàllu wërgu-yaram gannaaw taw yu métti yi nga xamante ne jot nañ ko nameeku ca fépp ci réew mi ci loola nekk waa brigade euh, d'hygiène jot nañu fa amal liggéey bu mucc ay pompe yenn école yi désinfecté ko tamit ngir euh, gën a taxawu euh, ndaw yooyee Abdou Diouf Diagne def na ci ab njàngat àndoon ceek Amadou Bamba Samb ngir ñu amal ubbiteg école gu ñoŋ waa brigade du jeune bu Rufisque daal di ciy dugal seen loxo école yi nekk Bargny yëpp nag ñu daal leen di pomper ngir nag daal di fànqal gone yi jàngoro yi nga xam ne moom lañu ñu mën a jëlee ci ndox mu bari mi nga xam ne nag ren jëlee moo tuuru ci biir réew mi. dafa bokk suñu mission chaque fois bu école di tijji ñu def euh, désinfection des établissements scolaires dans tout le département tey nag euh, ñëw donc euh, def ko fi donc. lépp pour préparer rentrée bi def nañu nébulisation def pulvérisation donc euh, te moom la ñu war a def euh, dans une vingtaine de d' établissement donc euh, lépp nag si collaboration ak maire bi donc fii nga xam ne jël nañu wala def nañ moyen yi nga xam te ne moo si war appuyer ñu donc pour mën réaliser loolu doxalinu ñi nga xam nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu cet nag daal di neex lool ñi nga xam ne ñoo jiite bokk moomeel bi ñu jàpp ne nag ndongo yi mën nañoo dem ci école yi te duñu am benn jafe-jafe defee njàng mi nag mën a door. tey nag service d'hygiène ñoom ñoo ñëw jël seen ay te ñoom yàgg nañ ko def bu cette année ci rek lañ koy def man depuis maa ngi fi mairie bi chaque fois man gis naa leen vraiment ñu ngi jàppale moo tax aussi ñu ngi leen di remercier mën nañ jàpp ne vraiment fi mu nekk nii suñu doom yi bu ñu ñëwee. daañu nekk si condition yoo xam ne condition yu normal la parce que boo leen xoolee depuis trois mois classe yëpp dañoo tëju kon ça veut dire que am na ay yoo am na yeneen yoo xam ne jàpp nañ ne bu fekkee defuñu désinfection bi mën na nekk gàllankoor ci wàllu santé xale yi yeneen école yi nga xam tamit ñoo nekk ci département bi ñi nga xam nag ñoom ñooy waa service d'hygiène fas nañ fa yéene dem dal di fay amal opération yu ni mel. Abdou Diouf Diagne lekkool yoolee nag bu ñu ko pompé ba jël fa ndox meek daxan yi ñi nga xamante ne mooy yoo ak li ni mel dinañ siitoo li nga xamante ne mooy fourniture loolu nag mel na nii ca diwaanu euh, Ndar Géej moom am na ñu ci taxawu di association boobu ñuy duppee acteur pour le civisme civisme la citoyenneté et l'émergence du Sénégal ñoo jël ci seeni koppar jënd ko ay fourniture ak kaye li ni mel ñu ne nag liñ ci jublu mooy fexe ba gën a dooleel ndaw yooyee ñu am ay jumtuwaay yi war fa Fadel kone moom ci association boobee la bokk ñu teewlu ko ci micro di Sabrera. buñ fi ñëw ngir jàppale ñi nga xam ni mooy suñu yaay boo yi maanaam parents d'élèves nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci Pomokhor ci école élémentaire El Hadj Fandiéry Koné ñëpp xam nañ ñu léegi jamono bi métti na dund bi cher na maanaam faju bi métti na donc ñu ñëw mouvement Access participer ci ci loolu donc distribuer ay fournitures ñi nga xam ne ñooy gone yi ngir mën a jàppale parents d'élèves ngir mën a tamit fàttali gone yi. ni leen civisme ak citoyenneté dañ doon ay valeurs yoo xam ni dañ leen kor war a inculquer ngir ñu mën a màgg ak valeurs yooyu ngir ñu mën a participer si euh, développement ak émergence su Sénégal. Lac Rose nag ku fa daan faral di dem ay jamono boo fa delloo da nga xam ne am na lu bëri lu fa soppeeku ngir fexe rek ngir euh, lac boobu jotaat melokaan bi mu mësa am am na nag ay jéego yoo xamante ne kilifa yaa ngi nas ca bopp ba nag jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu alam bi di euh, ministre Alioune demoon na fa nag yëkkati ci ay kàddu ñu ne nag gannaaw taw yu metti yi nga xamante ne jot na fa wasaaru am nay dégâts yoo xamante ne jot nañ ko fa nemmeeku tamit jël euh, ay dogal jaarale ko ci ay matuwaay ngir wàllu ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa yàqule dañu teewlu ay kàddoom ci micro ab Abdou Diouf Diagne. gis nañu ñi exploité xorom si gis nañu itam ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu aar itam fi ñu ne sax fi ñu taxaw ni réceptif hôtelier la gis nañ lam fa yàq loo xam ne ci ay infrastructures ay restaurant am dem nañ ci ndox bi. Euh, piscine 300 mètres carrés fi mu ne doo gis mu ngi ci biir ndox mi et cetera donc yàqu-yàq yi bëri na waaye li gën a doy waar mooy dañu ne Lac mu ànd ak ay activités touristique mooy touristes yooyu bu ñu ñëwul loolu yëpp day taxaw kenn du jaay kenn du liggéey hôtel du ubbi fi mu ne nii hôtel réceptacle yi fi ne ñu ngi nekk ci phase boo xam ne ay annulation de réservation la ñuy dund euh, ñi nekk ci euh, xorom si ñoom seen activité dafa taxaw et cetera donc loolu dañuy ñaan euh, service yi fi ne nga xam ne yenn yi ci sama ministère lañ ne waaye yeneen yi ñu ngi ministère de l'eau et de l'assainissement yeneen yaa ngi ministère du tourisme yeneen yaa ngi ministère artisanat euh, wala collectivité territoriale ñoom euh, gouverneur dajale leen ci ab diir bu gàtt pour que justement ñoom ñëpp ku ci ne constat yi nga def diagnostic yi nga def ak piste de solution yi nga génne ñu mën ko tonk autour du gouverneur pour mu mën ñu ko jébbal ñu xam lan la ñu mën a def ci diir bu gàtt pour ñëw jàppale en tout cas taxawu askan bi lan la ñu war a def ci ay études ak réalisation ci loo xam ne loolu dafa laaj àpp bu gën a bu gën a sore pour que justement état bi taxaw ci parce que dañu nekk ci ay jamono yoo xam ne ragal nañu euh, jamono yu ndox la kon nag loolu bu il faut ñu jéem a fagaru mu nekkoon euh, ministre Alioune Ndoye di jëwriñ bi ñu dënk euh, wàllu alam bi fii ci Sénégal mbokk yi yegg si nañ ci ponk bi mujj ak euh, li ci yenn kaay bi ñu àndi ceeg Serigne Salih Seck. nag jàmm politique daal waxtaan la ak waxaale ba juboo Aminata Touré waxtaan naak président Macky Sall juboowuñu mu waxaaleek ñoom juboowuñu tax jamono ji ñu nekk ci mbii cok mbaaloo l'observateur ne firnde moo di moom Aminata Touré jël na projet de loi ba yóbbu ko ca péncum ndayu réew ma di assemblée nationale ne li mu bëgg moo di képp ku bokk njiitu réew mi nga génne sa loxo ci nii réew mi di doxe journal Futur Média bi ne président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar tontu na ko maître Oumar Youm ne proposition projet bi delloo ko këram ndax du jàll maître Oumar Youm ne fi mu ko teg nag moo di nekk njiitul président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar te lépp dina leer bu session ordinaire bi ubbee fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bi Abdoul Mbaye ne moom daal li bañ moo di ak jaay doole waa coalition juste ci Vox Populi Aminata Touré projet de loi bi mu bëgg a def discrimination la te article 25 bu constitution bi di cartum réew mi moo ni dara warul tënk nit ci liggéeyam ndax wàllu waaso wàllu xeet góor nga wala jigéen wala sax fii la jóge wala fële la bàyyeekoo Eliman Kan Lex Africa ci enquête yéen kaay ne ne Aminata Touré projet de loi bi mbiri boppam la ci bëgg a lijjanti ak faj mer mer ci politique nag ñaar la mer meru ba far mer wala mer mer boo xam ne cinéma da koy jàpp ba faaw le quotidien bii bu ci mimi yaakaar waa PDS ca pencum ndawi di assemblée nationale ndax fàtte xaju fi mimi mii tey démb moo sonaloon witt waa PDS ak kër yi demoon sax ba jàpp seen njiit di Karim Meïssa Wade yóbbu ko ca kaso junniy xel ñaar Babacar Ba bu forum du justiciable ne buñ ko tegee faaw encadré ko liñ war encadré ba mu leer kay moo di waxe troisième mandat yi bés bi la journée Oxfam wax nan lan ca gis le témoin li mu gis ci ëllëgu PS di parti socialiste la xëy di càmbar journal bi ne wuutu Aminata Mbengue Ndiaye ci bopp PS moom la Serigne Mbaye Thiam ak Alioune bëgg lii tax yéenekaay bi jàpp ne jaamaarloo moom mënta ñàkk ci seen diggante diggante askan wekk dund gu cher bi na le soleil national ne fi mu na luñ na fii ak weeru janvier atum 2023 lépp li ni gën di jëfandikoo dinañ ko wàññi ba askan wi yëg ci seen bopp Walf Quotidien ndax li président Macky deful ci diirub juróom-ñetti at dina ko def ci ñetti weer ay weer a ngi ni la poste di yëngu L'As Quotidien kërug liggéeyukaay gi di la poste fu nekk la cin la di baxe liggéeykat ya mer ba futu lañ def mënatuñoo jot ci seeni koppar le journal samp na ndax mën nanoo sauver la poste évidence ne xanaa sagar di xeeñe muy université yi napp gi mbay mi càmm gi wér-gi-yaram ba ci collectivité territoriale yi communes yi ñoom ñoo fi dàq jëfandikoo courant te lu néew la ñuy faye lii quotidien ñaar fukk ak juróomi milliards ci xaalis CFA la Senelec def ci atum bi ci lampi mbedd yi waraloon ñuy wéy di tàkk tàkk guy tekki leneen di ak lakk moom la building administratif defoon la ko taaloon susu a gëstu na ko ba xëy becc ko cew xatam xët wu njëkku libération yéene kaay bi na ñaari milliards ci xaalu CFA boole ci di leeral kantom ak njiit la di Alvaro Yves Colette ak ni ko Paradise Papers daaneele mbiri ndem si yàlla François Mancabou daanoogul Les Échos yéen kaay ne procureur ubbi na ci information judiciaire ba jébbal dossier ba juge bu deuxième cabinet di Mamadou Seck ñu des ak journal Les Échos mi xëy defub gëstu ci naka la sénégalais yu bëri di dundekk seen temps journal bi na ñu bëri ci askan wi fukki waxtook juróom-ñaar ci lu amul njariñ lan koy def jigéen ñu bëri ñoom juróom-ñeenti waxtook lu topp dañ koy nelaw am ci itam gëyeen ak njaween yoo ni ñoom benn waxtu dinañ ko def ci bool bi toog di lekk yéenekaay bi yokku ci ne lii lépp ci réew mi lay xewee réew mi fi la gën saar di dëkk bu nekk ci Louga nekk l'observateur ne lu doy waar moo fa xew génn góor gu ay atam toll ci juróom benn fukk ak juróom moo fa taal néegub ku nekkoon soxnaam ndax góor gi nee na lan moo tax mu sëy ak ndaw si ba am ak moom juróom-ñeenti doom mu tas dem di sëy ak keneen Sëriñ Salir Seck cant ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di la ñaanal kenn du lu jàmm di ko sàkku ci yéen ci kanam tuuti euh, di ngeen ànd ak Mamadou Dia Ndiaye ak euh, soxna Mary Bey Diouf ci seen émission bu am solo boobu di li ci internet ñoo leen di ñaanal kenn du lu jàmm ci la ngeen jëf.